ñu ngi lay nuyu c'est un plaisir bokkal plateau bi waaye maa ngi nuyu képp ku seetaan ak foo mën a nekk ci àdduna bi rek. di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah dalal ak jàmm imam ñu dalal Keyna mu ngi ci plateau bi Keyna ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Aïcha. naka suba si suba saa ngi ne. bàyyi la mu nuyu mbokk yi. c'est toujours un plaisir di jàkkaarloo di yéen di nuyu également ñi ma bokkal plateau bi mais aussi di nuyu téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ngi ñuy seetaan un peu partout dans le monde léegi léegi rek Aïcha dinañ ñëw si ah. suñu astuce. Aïcha ñu ñëw ci astuce yi laataa ñoo ànd ak euh, dañuy daal di ñëw rek ci li nga xam ne mooy astuce xam nga dafa am ñi nga xam ne dañuy daal di am ay cheveux crépus am ñi nga xam ne dañuy daal di am cheveux yi nga xam ne euh, naturellement day crépus am ñoo xam ne naturellement dafay daal di lisse am ñenn ñi nga xam ne aussi dañuy daal di bëgg di def li nga xam ne mooy défrisage euh, donc défrisage yi nga xam ne euh, d'habitude dañ koy daal di defar mën na daal di yàq rek li nga xam ne mooy karaw gi donc et puis dañ leen di rappeler que bu nekkee da ngeen def afro donc il faut ngeen xaaraat li ngeen xam ne mooy 3 mois pour rek ngeen mën a daal di afrowaawaat seen karaw sinon dafay daal di euh, yàq karaw bi nga xam ne moom ngay daal di defar donc ñu bari dañu daal di bëgg seen karaw di liis pour ñuy daal di mën di def certains coiffures donc tey dañuy daal di indi euh, euh, défrisage bi nga xam ne c'est naturel donc loolu c'est fait à la maison dañuy ànd ak complicité li nga xam ne mooy Weuze ak Mohamed bu ko defee ñu daal di ñu accompagner rek ñu daal di défriser rek li nga xam ne mooy suñu karaw voilà comme ni ngeen ko gisee euh, lii euh, poudre mbokk la donc poudre mbokk ay Aïcha xam naa li nga neen temps yi jël naa ko torop donc dafa daal di euh, baax ci lépp li nga xam ne mooy yaram donc voilà te ci karaw la gën a tee baax donc boo leen ko jëlee ngeen daal di jël seen marmite li ngeen xam ne moom ngeen di defaree seen mélange Ah, donc ngeen daal di jël quelques kuddu ngeen daal di ko ci ah, sotti tout dépend aussi sa longueuru karaw nu mu toll mais ki nga xam ne ah, moom mooy def défrisage bi karaw gi dafa gudd torop donc euh, dafa daal di jël kuddu yu bari daal di jël kaasu ndox yu bari nga xool aussi bu nekkee rek doyut nga daal di dolli donc voilà nga teg ko euh, ci marmite bi comme ça avant nag mën nga koy daal di yëngal ba nga xam ne donj yi nga xam ne ñoo ci nekk dafay daal di seey carrément comme vous voyez après nag da ngeen koy daal di def ci euh, feu donc euh, feu doux moo maanaam euh, si gaz bi feu du fort trop donc da koy daal di def ci feu bi di ko mélanger ndànk-ndànk comme vous voyez donc di ngeen koy mélanger ndànk-ndànk bi nga xam ne dafay daal di mel ni lu mel ni lu concentré comme rek la dernière fois diw bi ni ko at ak marine bi mais cette fois-ci du doon bain marine bi plutôt euh, fëdu lay doon donc euh, voilà gis ngeen ne carrément euh, ni mu liquidé woon léegi dafa daal di commencer di concentré wu ba mel ni daakaande xam nga loolu Aïcha daakaande bu baax donc mu ngi noonu voilà comme ni ngeen ko gisee nii après nag bu nga xamee ne jël na forme rek li nga xam ne mooy afroi après ngeen fay rek li ngeen xam ne mooy seen gaz ndànk bàyyi ko mu xaw a sedd comme ça donc suñu mélange euh, pare na voilà donc euh, pare na léegi nag euh, da ngeen koy bàyyi ba mu sedd ba ngeen xam ne carrément karaw gi dina ko daal di ñeme at sa loxo aussi dina ko daal di ñeme nga daal di ko segg comme vous voyez seggaay bi day tax rek li nga xam ne mooy bul yi nga xam ne ñoo nekkoon ci mélange bi dafay daal di rester rek ci li nga xam ne mooy passoire bi donc xam ne day gën a facile pour daal di defar rek li nga xam ne mooy sa bopp. donc euh, loolu dañ koy daal di éliminer comme voilà léegi ñu daal di attaquer rek li nga xam ne mooy euh, euh, voilà afroa bi Aïcha gis nga lii karaw la sa karaw tollu nii <laughs> sa cheveux move toll nii donc nga daal di ko jël appliquer ko bu baax a baax a baax ci rek li nga xam ne mooy biir karaw gi pour bu pare day daal di am frisé cheveux frisé donc mi ngi noonu donc euh, surtout li nga xam ne mooy aussi der bi euh, nga daal di ko ci gën a appliquer bu baax a baax a baax donc bu nekkee da nga jël euh, rek li nga xam ne mooy mélange bi appliquer ko da koy daal di bàyyi pendant 30 minutes bokkut at afroi bi nga xam ne da ngeen koy daal di bàyyi ay 2 minutes muy commencer di saf lii du daal di saf donc gis nga bu paree dafay waw sa yaram bi ba mel ni masque donc c'est déjà dafa baax rek pour sa peau. mais aussi noonu la baaxee sa yaram donc boo ko bàyyee pendant à 30 minutes nga daal di ko raxas donc boo ko raxasee dangay ngay daal di gis ne karaw gi gis nga ni mu mel euh, bu nekkee euh, cheveux bi dafa frisé gis nga ni muy frisé bu nekkee nag aussi dafa liis day gën a liis wàcc carrément ah, ba mel ni rek euh, rek li nga xam ne dañ ko daal di afroa mu nekk produit bi nga xam ne Aïcha seen naturel amut benn loo xam ne dafay mën a yàq karaw gi et que compliqué wut pour defar ñaari ingrédients rek la soxla muy farine ñu mbokk ak li nga xam ne mooy ndox euh, kese daal di ko def mu nekk ak waa euh, donc sa type de po lu mu mel noonu la koy daal di def euh, kii karawam naturellement dafa frisé donc moo tax mu daal di frisé mais bu nekkee genre sama karaw yi nga xam ne dañu liis naturellement dafay daal di liis ren Aïcha mbokk lan lan la am lu extraordinaire wala boog lan moo war a nekk composant bi tax mu war a dem ci bopp am bokk dafa daal di bëri ay euh, bienfait yu nekk ci biir am bëri vitamine euh, donc bëri yoo xam ne aussi euh, dafa daal di baax ci yaram parce que boo xoolee tey bu nekkee dañuy daal di def masque mën nañ utiliser li nga xam ne mooy mbokk bu nekkee diw la plupart ñi nga xam ne dañuy defar diw bu naturel aussi dañuy daal di utiliser li nga xam ne mooy mbokk donc mu nekk loo xam ne bari na ay bienfait yi nga xam ne ñoo nekk ci mbokk ba muy yaram muy karaw muy lépp da ciy daal di dem ay Euh, si <laughs> si karaw bon je sais pas xam na la laa si la laa si la laa si sànni bon euh, xam naa ne daal jigéen ñi lu ñuy teg ay greffage daal man sama sama plaît pas quoi bon. ñu def bopp euh, neen non pas du tout mais je sais pas xam nga karaw naturel c'est joli. Mhm. waaye am na ñu leel. voilà hein. am na ñu leel. genre Mbaye Pett Tawee man ak Anta je sais mais mais comme comme lu ma laaj kam keroog maa ngi posé benn le fait que euh, koo xamante ne dafay dafay dafay euh, comment comment je dafay fréquenter benn jigéen boo xamante ne. mais euh, visée yi mooy visée yu nga xamante ne ay visée daf ko bëgg a tax quelque chose comme ça mm-hmm. mais ku jigéen ki à chaque fois dafay def euh, kii dafay def greffage léegi yow xamuloo ko jigéen ki par exemple mosuloo ko gis tête nue mm-hmm. donc te d'habitude am na amour yoo xamante ne dafay basé sur la beauté. Mhm. donc quand l'amour se base sur la beauté comme ça man ma gis la nii rek après nga neex ma et tout après moo ma nekk jigéen ki neex na ma affaire yooyu noonu après ma lay commencé invité ni da ngaa leel ba leel ba ak mais ce que je dis là ah, bon est-ce que par exemple lu may bu dee lu ma. lu may bu dindi greffage bi nga découragé. waaw waaw loolu est-ce que du du risque. risque si ku jigéen gi. waa nekkee risque achat xam nga teg perruque. voilà comme on di la beauté elle s'embellit nit loo rafet rafet rafet. da ngay def ay affaires yoo xamante ni mhm. da ngay gën a yokk sa taax. comprendre nga donc voilà ak affaire bi aussi choix la am na ñoo xam ne doo leen gis mukk ñuy teg perruque. dañuy léttu tout le temps. Mhm. man des fois damay léttu semaine bi passé kii naan léttu ma fi ay léttu karaw ñëw toog ni samay live def émission ah, wës ne ma dangaa am fit mm. ndax léttu karaw nga léttu ñëw toog mais il faut ah. avoir mais est-ce que jàppaloo bon c'est une question à vous deux mm-hmm. jàppaloo ne courage la mm-hmm. le fait que par exemple nga wan ku nga xamante ne moom moo lay fréquenter sa bopp loolu courage la waaw mais je d'accord avec ça hein mais loolu c'est c'est normal. mais du du du kese ñi nga xam ne ñooy euh, teg perruque mais am na ñoo xam ne tey dañuy musóoru donc euh, est-ce que loolu tamit du courage ñoom ñu dindi seen musóor kooku gis ko yow jëlee woo ko beneen sens boobu pas perruque kese. non musóor beet muur bi nag mais musóor bi loolu. c'est mais xanaa xamoo am na fooy toll perruque bi day day day sànneeku. fooy toll day wadd non non ma je veux pas. Ah. non man non mais day war munoo nekk ak perruque tout le temps tout le temps yàlla boo am jëkkër tout le temps da ngay dindi sa perruque tu peux pas tout temps. avec non moi je dis avant xam nga par exemple bu fekkee da nga nekk ci phase. Euh, mariage euh, non pas euh, pré kii pré avant mariage. da ngay waaj a takk jabar ñoom ndax ñu mun laa ndaw tax mm, mm, damaa jommi. kii naa bay jàmm. ah damaa jommi ci. dafa am solo de. baax na dee leen wane seen bopp yi ni mu mel. waaw donc moo ah. bëggoon wax moom mooy avant le mariage. waaw naa tey nag ku jigéen ki def xam nga parfois foofu la affaire yi foofu lay xewee foofu lay baaxee wala mu ñàkk baax. Mhm. non c'est vrai par exemple avant le mariage. Mhm. Euh, foofu xaaral xaaral avant le mariage foofu. Euh, lu lu ngay wanee foofu rek moo nekk résultat ci mariage bi. honnêteté mhm. su fekkee am na foofu après. mariage honnêteté ba ci leen. non honnêteté moo pour man c'est pas honnête le fait que ngay nëbb sa bopp ku nga xamante ne moom ngay. moo lay labal waa Pape yow tu pour leel wala contre leel. non je dis pour la hmm? transparence quoi. waa dama lay laaj da bëgg jigéen bu leel wala bëggoo jigéen bu leel. comprendre Pape Pape il prône pour. waaw lu naturel mais moom dama kaa posé question ndax da bëgg jigéen bu leel wala bëggoo jigéen bu leel bi nekkul man lu ma bëgg man lu ma ñaaga bëgg. voilà alors oustaz parce que perruque yi dañuy leelaate nag. non mais bu oustaz naa ko laaj question si loolu. Ah, ah, est-ce que ah. motif de divorce la le fait que par exemple ku jigéen ki euh, mosuloo woon gis boppam par exemple bu karawam nii nii daf doon daf doon def greffage nii rek après nga dem ba si biir mariage bi nga gis ni dafa leel par exemple est-ce que boo ko divorcé divorce boobu sëy <laughs> mbëggeel boobu des na voilà dafay voilà parce divorce bokk na ci motif yi nga xamante ne moo koy waral ku góor ki gis ci ku jigéen ki loo xamante ne neexu ko mm. ci jikkoom wala ci bindam mm. hmm? yooyu yëpp góor gi dafay dal di am sañ-sañ divorce te dafay valable bu boobaa mais man gis naa ne euh, kara euh, karaw gu gàtt wala karaw gu leel di jigéen warut a tax. nit divorce góor di fase <laughs> ah parce que nit ki boo koy bëgg da bëgg âme bi. esprit bi te bañ a yem rek ci koor bi te booy labat ci sax déjà. Euh, ñetti bërëb yi rek lañ la may sañ-sañ nga xool ko. ci ndaw si muy xar kanamam. Mhm. Hmm, xam nga bopp bi bokku ci parce dafay xijaab. xar xar kanamam moo am na sañ-sañ mu def nii nga xool. xool bakkan bi xool tuñ yi xool mu def nii loxoom nga xool loxo yi xool baaraam yi et aussi mu euh, nga xool tànk yi am nga sañ-sañ aussi ni ko ndox muy dem nga xool ndaag li. <laughs> buy dellu <laughs> buy dellu si aussi nga xool ni muy ni muy jaabe di ñëw foofu nga yem donc yeneen yi ci des boo duggee bu ci biir loo fa gis danga ko war a muñ nag. Ah. loolu leer bi de leel bi moom di ko muñ. ay ginnaaw merci parce que nit lëndëm na lëndëmaay boo xamante ne jigéen. ah lan surtout nit rek laay wax mais surtout jigéen lëndëm na lëndëmaay boo xamante ne boo ne da ngay ah. gëstu léppam ba xam léppam soog soog koo takk. doo ko mës a takk. te benn jigéen parfaitul sax ah, nag. non man yàlla bindul lu parfait non lu may wax mooy lu visible. pas loo xam c'est invisible loo xam c'est visible loo xamante ni xale bu jigéen su taxawee di nga ko gis. léegi su la soo nekkee xale bu jigéen bi su ko wanul nga ne ko eh dindi a perruque ma xool sa bopp ne mel Pape yow tamit si ah, sax. <laughs> Ah, waaw loolu et yow ku góor aussi ma bon mën mën nga sëy ak moom ba pare bu nga sumee ko mu gis yow loo xamante ne neexu ko ah. ah bon comme la sa benn waay yàlla bi sa benn ñaari kii benn bi nga am benn rek. <laughs> j'ai pas compris. ñaari ñaari lul sëy nii doon yi séq sexe bi am na ñoo xam ne benn rek benn bul rek la ñu am. Ah, noonu la leen yàlla bindee. noonu la leen yàlla bindee. sëy si dagan na. wala dañoo xuuxaan si non si dagan na mais est-ce que ci gu jigéen ki loolu bëgg na ko si. mu ngi noonu. loolu moo tax ñu naan ngay koo xamante ne sa bëñ yëpp dafa mbuuraanoon docteur bi ne leen nga dindi ko. ay poose nga yor. nga guddi nga dindi bëñ yi sa gémmiñ ji ne mbatt ndaw si di soog est-ce que bëgg nga mën a la fasal maa du kaa bay critique c'est-à-dire dafa am ñoo xamante ne nag des koy muñ nag alors waaw loolu de am na moom ndax yàlla bindul lu parfait muy góor muy jigéen kii naa merci beaucoup jaajëfal nañ la bu baax a baax ah waaye Oustaz da lay wax ne la ñun ñaar li ñu teg dafa xaraam dafa xaraam kay <laughs> waaye nag muñ rek ay ca léegi léegi ñu dikkaat ci plateau bi <laughs> mais am na ay. plateau matinal Allô Sénégal on enchaîne de plus belle avec Oustaz Oustaz tey waxtaan wi lan la. waaw tey de dama bëgg ñu tëj euh, li nga xam ne moom la yëkkati woon muy wàllu.